هديتي إلى جماد الثانية من المحرم الخطوف الدانية هديتي إلى جماد الثانية من المحرم الخطوف الدانية ملكني المال

ba xam ko. ba xam ko. xam kan mooy Cheikh Abdoulaye Lahad. xam kan mooy Cheikh Abdoulaye Lahad. ci jikko. nee ci jikko. ci mbaax ci mbaax. ak mën a dimbali doomu ak mën dimbali doomu aadama. ak jox nit cër. ak jox nit cër. am na bis ma koy wax sëñ Maaraam mais. am na bis ma koy wax sëñ Maaraam Mbàkke mu baax mais. ma ne ko li ma yéem ci sëñ Mahamadan. ne ko li ma yéem ci Cheikh Mahamadan. lu nit suufee suufee. lu nit bu àndeek yow bu àndeeg yow. ba ci barab ba ci barab. dana la yëkkati dana la yëkkati. ba bu la yàlla dimbaliwul. ba bu la yàlla dimbaliwul. da yaakaar ni dara nga. da nga yaakaar ni dara nga. taas gor. taas gor. noonu la ñuy àndeeg moom. këram boo demee. këram boo demee. bëccëg bëccëg. guddi guddi. ñu dëkk Touba ñëpp. ñu dëkk Touba ñëpp. xam nañ li may wax. xam nañ li may wax. day fees dell. day fees dell. li ñu fay wut. nee li ñu fay wut. mooy ku leen di jàppale. mooy ku leen di jàppale. te lu mu am da koy delloo ci nit ñi. te lu mu am rek delloo na ko ci nit ñi. jataayam bi magsee. moo tax jataayam bi magsee. ma ne man de amatuma kàddu. ma ne man de amatuma kàddu. la ma doon wax lépp. sëriñ dama la koy delloo te jégglu. da ngaa fekk may seede ci sëñ xaadim mii di wax ci moom. ne ma ni dama dafa am ca fan yee. may seetaan TFM. may seetaan TFM. ñu invité ko. ñu invité Serigne Khadim buso muy wax ci aj Makka. muy wax ci aj Makka. am ay kilifa yu mag yu ma toogal. am ay kilifa yu yu mag yu ma toogal. yoo xam ne sax bokkuñu sax ci yoon yoo xam ne bokkuñu ci yoon wi. ñu ne gone gone ñu ne gone gu nii de. ñu ne gone gu nii de. ku ko am ku ko am. war nga koo fonk war nga koo fonk ndax ndax. kuñ ne sëñ Mbacke Bousso nga bokk. kuñ ne sëñ Mbacke Bousso nga bokk mooy sa maam. ñu ne la ku tedd kii nga xam ne. ñu ne la ku tedd kii nga xam ne. ñun moom. amuñ ku dul moom. bëgguñu lu dul moom. bëgguñ lu dul moom. gisuñu it lu dul moom. gisuñ lu dul moom. leneen lu mu a doon. leneen lu mu mën a doon. mën nañ koo ba mu des Serigne Touba. ba mu des Serigne Touba. ñu ne sëñ moomu de. ñu ne sëñ Mbacke Bousso moomu de. moo ko taxaw. moo ko taxaw. doy na sëkk ndam. doy na sëkk ndam. xam-xam yeeg. xam-xam yeeg. yeneen yëpp yeneen yëpp amul solo amul solo li am solo li am solo mooy ak taalibi mooy ak taalibi kon nag kon nag bu ne laa buñ ne laa diw diw moo taxawu sëriñ bi moo taxawu sëriñ bi te la ko sëriñ bi jàngaloon te ko sëriñ bi jàngaloon tari na ko fa tari na ko fa ndax bañ ca tolloo ndax bañ ca tolloo ba nodd ba nodd dani nañ julli ji dani nañ julli ji ba ñëw ba ñëw doog a àggale doog loolu mooy am njàngale ne loolu mooy am njàngale moo tax ni mu mel nii moom xaadim moo tax sëñ xaadim bu sa mii ni mu mel nii ci fépp ci fépp. fu ñu attaqué sëriñ bi fu ñu attaqué sëriñ bi. wala ñooñ sëriñ bi wala ñooñ sëriñ bi. mu jaral ko summi mbubam mu jaral ko jaayante ko jaayante ko. ngir wan leen kan mooy. ngir wan leen kan mooy sëriñ bi. te loolu rek am solo. te lépp loo jàpp. te lépp loo jàpp. lu dul sëriñ bi lu dul sëriñ bi. ba sëriñ ba ba bi bàyyi la ak loolee. bàyyi la ak loolee. da xam ne la nga jàppoon. da nga xam ne la nga jàppoon. du dara yal na nu yàlla xiir ci jàpp sëriñ bi. ñoo ngi jégalu kàddu yi ñoo ngi jégalu mbàkke kàddu yi. di la ñaanal suñu borom ñaanal sëñ xaadim di la ñaanal sëñ xaadim mi suñu borom dimbali ko suñu borom dimbali ko ndax am na nit ñoo xam ne ndax am na nit ñoo xam ne or lañ or lañ suñ ko amee suñ ko amee dañ leen a war di ñaanal dañ leen a war di ñaanal di leen jàppale di leen jàppale ndax fañ jëm ndax fañ jëm baax na ci ñun lool baax na ci ñun lool maa ngi jégalu ñëpp maa ngi jégalu ñëpp. di nuyu capitaine bu baax di nuyu nag capitaine bu baax a baax. ndax lii nga def. capitaine lii nga moo am solo moo am solo. gis nga xëccub àdduna bii. gisoo xëccub xa xëccub àdduna bii. ca Senghor. ca ba tey jii. ba tey jii. ci Jomaay ci ku fi jaar ku fi jaar da ngay dem da ngay li fi des li fi des mooy sëñ Touba mooy sëñ njabootam moo tax fee nga wàcce moo tax fee nga wàcce toog fii ci suuf moo lay yëkkati capitaine jërëjëf ma ne sëñ Abo jërëjëf jërëjëf di nuyu suñu xaadim bi bu baax. jërëjëf Mbacke. defe naa ci xaalis bi rek laa jógee. moom laa ci teg. waaw seet si ko. jërëjëf Mbacke. li waral loolu nag. Mm-hmm. li nu boole dafa bari. Mm-hmm. moom mii. Mm-hmm. li muy ndawee ndawee li ma boole moom daa bari danaa ci ñëw. waaye li may jëkke eh, ñun ñii tam di sama jëm ji teew. ñu tuddee ma doomi borom Daaru Muxti. alhamdulilah naag sëñ Mahamadou ñu bokk benn turandoo. ma ñëw fekk leen fii. danaa jëmmal loolu. ndax kóllëre a loon loolu yàlla def li mu ci jëkk a nettali nun waa kër sëñ Abdou Lahad dañuy sant maam Cerno Birahim alhamdulilah ndax sëñ am sutu jaxate dafa woon sëñ Abdou Lahad doon ñëw mu ne ko ñaari mag yi nga am ku ci nekk gannaaw ko la sëñ Tuuba juree ba noppi am nga sa cëru bopp boo xam ne la la Cerno Birahim yar moo tax nga dolli koo ca loola muy sëñ Mudu Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal ni ko yow nag mm-hmm. bi ngay ñëw fekk na loola wees mm-hmm. te mu bëgg la sa ñaari mag yooyu amoon nag mm-hmm. nga am ko man seeti Cerno Birahim te bu ko tàggu ba mu yeewi la mu téye ko weeru yàlla ba mat mu woo ko waxtu yor yor mu ñëw mu ni ko Abdoulaye dama bëgg nga ñëw dellu barab bii nga ñëw tey nag lépp a ngi fi dara jeexu fi fas yaa ngi fi mhm. nag yaa ngi fi xar yaa ngi fi jur gaa ngi fi dund baa ngi fi dara jaxu fi mhm. te sa bàyyee ko fi def du ma la jox nag lenn mhm. benn yóbba rek laa lay jox boo xam ne lépp lu sa bàyyi na nga am jom ndax jom kat moo jëlee woon sa bàyyi fii yóbbu ko mu dem liggéey delloo si ko takkalewaat koo ki bokkam nga liggéey bi toll nii mu toll boo demee na nga am jom sëñ bi bu ko daan nettali danaa wax ne jom joojee laa dëgërloo ña ma Cerno Birahim waxoon baat si fii ma kon faw nu sargal leen. ci ca ci loolu nga xam ni. ab joxañ la woon. Mm-hmm. suñu laa teg ca tànkam. baax suñ Mbàkke bu sa nag. Mm-hmm. wax naa ko suñ Omar léegi. Mm-hmm. ma ni ko. ñi xamul ñoo xamut. waaye noonu suñu soin boo ne nettali woon. ci làmmiñu boppam. nettali naa ko suñu Omar léegi. ma ko dafa noo waxoon ni bi ñuy wax ku jëkk a ci sëriñ bi ak nangam. suñ Tuubaa dafa waxal boppam. ni bu yow ma tub la sarairo. des na xam ne Mbàkke mii. ba ca toppaatit sëñ Abdou Lahad maam yi kii ba mu koy woo di jël jumaay Tuubaa ji di ko teg ci loxom ak atta bi ji ak ko woo ba mu ñëw mu ne ko sëñ Jaaja mennum sëñ Mbàkke bu sa képp bi sëriñ di wàccee moo waxoon ne lam ma waxoon foogoon naa ni ba si fii nanum suñu mbakki bu sa képp moo wax ni fii la moo waxoon kon su ma fabee jumaa ji attam jumaa ji ak barab bi teg ko ci loxol doomi suñu mbakki bu sa sama jaan wàcc ñu continuer nag loolu diggante suñu Tuubaa ak suñu mbakki bu sa wala réew sa njaay nag ak suñu laxat dikk loolu mooy sama tànk yi ñu meloon noo xam ne dafa jéggi woon dayo fam ca àggoon na mu mus fa àgg nit daana ko defal ngan at mu jot Mbàkke boolu lu di ko fekk di ko saxal ba ni mu nekkee xalif général ba ni mu demee ba tële mustaman ci ba ca toppit nawlonte ak fonkuñ ak doyloo yaakaar naa mënta weesu jël sa soxna su bokk jox ko te àgg nañ loolu mooy sama tànk yi xaadim mii nag ndaw la waaye nag dafa sàmm lépp te amul dara luñ ko mën a jame wala ñu jabee ko ko ci biir yoon bi loolu mooy suñu tànk yi ma jógee ci xalis bi moom rek laa ci teg su ma jógee fii damay wàññeeku ngir seeral ko jëfam ak taxawaayam te di la soññit ci taxawaay yi nga xam ni yaa ngi koy def ndax ñu ngi lay bàyyi xel jàmbaar la de yëngu ñu yëpp ñu ngi si bàyyi xel comme ni ñu ko seedee yow mi léegi loolu nun ni ñun ñëpp xam nañ ko mooy li ñu lay ñaanal yàlla rek yàlla may la ndam doon la katt la taxaw ak yàgg fi tubaab ba foo bëgg ak nga àgg fa te xam ne mbirum suñu tubaab mi ñu wàcc ci suñu bakk bi suñ baax si si yow mi dara du ci dem ko ñu ngi lay gërëm yow ci it yi nga xam ne def nga ko ci jàpp gi ndax jamono ci xat na ak déplacement boo bàyyi it yëpp ñëw fii te xam naa ne sa digg ak moom am na lu fi ne ndax bi ma agsee rek dafa daal nuyoo léegi yow fi saasi kon xam naa ne am nga ci moom cër loolu nag mu ngoog boobu kon ñu ngi lay xamal ni nit ku baax a ngi nii ku mat a jàpp a ngi nii ndax biñ ñëwee ñun ñun ñu fi fekk rek. Mhm. wane na jikko. wallaay wallaay wane na sa jikko. wallaay la gërëm di la ñaanal yàlla. yàlla doon laa taxaw. amiin yéen ñi fekk yëpp itam. Mbacke kontaan nañu lii sa cër ci ñun. kontaan nañu Mbacke wallaay Mbacke yaa baax rek baax rek. yaa baax rek Mbacke. yasuru sayidi.